di sant yàlla ci bés bi di nuyu di nuyu gouverneur bi nga xam ne mu teew di rafetlu seen teewaay di nuyu taxiya xaasa di wërtali di tëddali di nuyu mbooleem mbokk yi nga xam ne ñu ngi sëriñ bi la war a yor déedéet. waaye moom it bëggoon na ci biir comme ni nga ko waxee liggéeyal la ay magam ak ci xalifa bi Cheikh Tidiane liggéeyal Seydi Ali bëgg mboolem xadami bàyyi nga xam ne kum ci gis dafa jàpp ne moom moo la war a xima njabooti bàyyi yëpp ci kum ci gis dafa jàpp ne moo la war a xima bokk ci bàyyi teraanga la boo xam ne yàlla koy def waaye nit ki utal ko boppam waaye bokk ci taalibe bàyyi teraanga la boo xam ne nit ki moo koy utal boppam te loolu Cheikh Mamoun nekk na ci ba ràññeeku ci nekk nit koo xam ne nit la nekk defkat lu baax nekk wax nañ ci moom jotaay bi na ma delluwaat ci wax ci loolu waaye nag li nga wax ne Cheikh Mamoun mën nañoo ci moom lu bëri loolu dëgg la terangaan ci boo xam ne kuy nit rek mën nga koo jëriñ li Abul Abbas sët ci wax ne al wujudu yanfa'u bi إنما ملكوكم لك الخلق am tawaadoo di jaay yi bëgg yàlla bëgg bi ci yàlla yi bëgg jàngkat yi di encouragé ndaw yi ba wekk mag ma am fiiraange ci pay bi bëgg pay bi di feeñal bu nekk lan mooy matat pay bonaa Cheikh Ibrahima radiallahu anhu li nga xam ne sax jàng ci muy yenn yu xew tey kër yi ñu koy wax sax buur bi ñoo ko war a xeex tey ndax kër yooyu jotewul dara jàmm rek mu def ci seen i gis. Oustaz Babacar ak léegi waxtaan bi ñu def tudd naa alaqa bi nga xam ne mag ñi amoon nañ ko ci démb dalee ko ci Mawla ji ba ci maam Ousmane bi nga xam ne mooy maami Seydi Si Hadj Malick loolu di rafet di rafet ba tey fi ci askanu ci yeneen pays ba ñu te Sénégal dafa toll foo xam ne sous région bi yëpp dëgg-dëgg ay tolof tolof yoo xam ne yàlla musal na ci Sénégal ci barke liggéey yi kilifa yooyu nga xam ne ñoo fi jaar ak seen àndoo ak seen dimbalante ci yàlla ak bëggante ngir yàlla ak ku nekk nga wàcceeku wàccuwaayam loolu moo ñu may teraanga yi nga xam ne Sénégal ñu ko nekkee waaye damaa gis ne àgg nañ koo xam ne ñi bëgg yàq Sénégal tey dañoo jàpp ne li gën a foor ci xoli waa yi mooy nga xam ne moom lañ askanoo ci seeni sëriñ te loolu ci lu may bëgg di bëgg loolu nag comme dof yi rek ñoo ci nekk dof yi borom xel seetaan ñu yàq seen réew gouvernement du ko seetaan kilifaay diine yi duñu seetaan taalibe yu baax yi duñu seetaan bëgguma sori ci wax jooju ndax ndax wax nañ lu bëri bëri waaye damay rek def sant yàlla ci teew ci ziyaara boo xam ne Cheikh Ahmadou Mamoun lañuy fàttaliku di jottali teew euh, nuyoo yi xalifa Cheikh Ahmed Tidiane yi nga xam ne am na fu mu teg Cheikh Mouhamadou Mamoun ndax niroo nañ lu bëri mooy nekk doom ba pare nekk taalibe pare di liggéey xadara gis naa ci moom ay bés yoo xam ne bu ma toogoon di ko nettali ci jëflante rek da muy jëflante ak ay magam ak tawaadoo boo xam ne moom la am dama ci daan bàyyi sama xel di wax ne xanaa kii dafa am ñeneen ñu muy jàngal kon bésam dëgg-dëgg bés la yow mi yaa ngi jaay bàyyi nag tollootul fu ñuy waxee ndax ku baax la wala doo ku baax loolu dootul lu ñuy wax waaye lii saa Babacar wax rek ba tey nañ seet ci ay yaram yaram jàngale la jubale la jëriñ jaamu yàlla yi la am mbëggeel ci ñëpp rawatina tariqa bii nga xam ne ci lañ nekk ñun de duñ saaga kenn koo xam ne mu ngi askan ci tariqa bi rawatina ñi nga xam ne ñoo liggéeyal tariqa bi ba mu agsi fii te képp koo xam ne tamit yàlla Cheikh Ahmed si Cheikh Ibrahima la def loolu te ñooñu ci ñun ñii tudd nga xam ne ñun amul sikk ci seen wilaaya ndax liñ defar feeñal na ko gëmul ne kenn kuy saaga kuy sukkandiku ci ñoom muy askan ci ñoom sa askan wér dafa nekk loo xam ne buñ ko bàyyee mu màgg dana àgg koo xam ne du nekk kenn ci ñun ndax xidmaal kenn nekk ci waaye óolu nañ yàlla ci barke jotaay yi nga xam ne ñu ngi ci nekk óolu nañ mag ñooñu ci seen liggéey bi nga xam ne ci lañ nekkoon di ci dimbalante ak mbëggeel bi nga xam ne moo nekkoon ci seen diggante Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu moo xam ne bëgg kilifaay diine yi àgg naa ko muy ñaan yàlla di wax ne yàlla yàlla nga mu jubal ci réew mi foofu la tolloon nag ñu baax ñi ci réew mi àgg naa moom ci mu wax ne ma mu ne man man seytaane parce que daa mën a yëngal kooku lañ doon waxtaanee tey waxtaanee ko ci waxtaanee mbaax la bokk waxtaanee ko ci waxtaanee lislaam la bokk waxtaanee ko ci waxtaanee tariqa tijaani la bokk waxtaanee ay dundu doomam ci waxtaanee ko la bokk waxtaanee Cheikh Mouhamadul Mamoun mii sax ci waxtaanee Alhaji Abdoulaye la bokk ndax bàyyi ci bëgg bàyyi ak gëm madrasa dem na bay ñaan ne samay doom yi wax bu nekk nañu sax ci madrasa bi nga xam ne sama bàyyi mu nekk indiwoon te jàngale jëf <laughs> jëf بسم الله الرحمن الرحيم آمين ذلك السلام على الذين الفقير الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما ولا عصينا ولا عصينا ولا عصينا ولا عصينا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 الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق الأعوان وحل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى وعظم قائما علينا